tey gërëm di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara di ko nal gërëm di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara fii ci diwaanu Poroxaan cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke Bachir demoon na nemmeeku ji ay liggéey yoo xam ne naaloon nañ ko ci daaray maam jaara ji mu jëm ci ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo fiy jàngee bokk na ci centre de formation bi nga xam ne liggéey nañ ko ba noppi sëriñ bi demoon doon ko nemmeeku muy centre de formation professionnelle boo xam ne dañ koo jagleel mbooleem maam jaare yi nga xam ne ñooy jàngee ci daara ji ginnaaw buñ mokkalee alxuraanul karim ñu mën di leen fa tàggat sëriñ bi gis na liggéey bi daal di koy rafetlu bu baax a baax ginnaaw bi sëriñ bi ñëw na nemmeeku forage bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci biir daara ji mu nekk forage boo xamante nii day jox ñi nga xam ne ñoo di ndongo yi ndox mi nga xam ne moom la ñuy saasu ne forage bi nag liggéey bi daanaka yemb na li ci des bareetul ndox mi sax jot naa génn bañ wan ko sëriñ bi mu gis ndox mi daal di ciy ñaan ñaan goo xamante nii dañ koo jël dellowaat ko ci biir forage bi ngir mu nekk barke boo xam ne képp koo xam ne naan na ci ndox mi dana ci am sëriñ bi nag mbooleem visite yi nga xam ne mu ngi koy def ci biir daara ji mi ngi ciy ànd ak kilifa yi ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom liggéey bi. ginnaaw bi sëriñ bi bàyyeekoo ci forage bi dem na it daal di nemmeeku infirmerie bi nga xamante ni fédération daayira Maam Jaara bi nekkee ci réew États-Unis ñoo ko financé ba mu àgg. def ci lu toll ci 70 millions de francs CFA. liggéey bi nag sëriñ bi ñëwoon doon ko nemmeeku dugg ci biir xool mbooleem saal yi. waaye bég lool daal di ñaanal ñi nga xamante nii ñoo doon taxaw liggéey bu ni mel. beneen liggéey boo xamante nii war nañ ko sëriñ bi mu nemmee ko ci daara maam jaare ji moo di dortoir yu yees yi muy bërëb bi nga xam ne moom la maam jaare yi di dalloo mu nekk ñetti batiment yoo xamante ni liggéey nañ ko ba liggéey bi sax léegi mu noppi loole it sëriñ bi nemmeeku na ko. ginnaaw nemmeeku gi nga xam ne sëriñ bi def na ko mbooleem liggéey yi nga xam ne moom lañ naal ci biir daara maam jaare ji sëriñ bi dem na daldi seeti ñi nga xam ne ñoo di maam jaare ci seen bopp ak ñi nga xam ne ñoo leen di taxaw ci liggéey bi di mbooleem ñi nga xam ne ñooy liggéey ci biir daara ji. sëriñ bi bi mu agsee ñi nga xam ne ñoo di maam jaare yi fiy jàngee am na nuñ ko gàttandoo.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 kaafiriin sadaqallaahul aziim ginnaaw alxuraanul karim gi nga xamante ni moom lañ gàttandoo sëriñ bi ak wolofal yi ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diakhoumpa présenté na sëriñ bi mboolem personnel bi nga xam ne ñooy liggéey ci daara ji ci noone ci la ki nga xam ne moom moo di sëriñ Abo jaxatee mi nga xam ne mooy directeur bu daara Maam Jaara ji daal di yëkkati kàddu ci kanamu sëriñ bi. bi noo ngi jottali nuyoo di jottali siyaara di jottali ak cant ci turu mboolem ñu nu bokkal liggéey bi fii ci daara ji noo ngi sant bu baax ci tiraanga yu rëy yi nga nuy defal te ja ca gën a rëy di tiraangay boole boole ci liggéey bu rëy bii di liggéeyub alquran mel ne sëriñ Souhaïbou moom sëriñ bi mi daan liggéey lu liggéey bu demee nii ña ko daan defloo ña ca gën a farlu la mu leen daan terale di leen ko soññee mooy fàttali leen tiraanga ji leen yàlla defal te bi sallallahu alayhi wa wax ko te moo di xayrukum xayrukum man taallama alqur'ana wa allama wax yonent bi yi ci gënoon a begg li ci aw làmmiñam wax ji ci la bokk mu daan ko soññee jàngalekat yi bu koy firi itam daf daan taamu bayitu maam mbay jaxate moom maam xaadi ma jaxate kala firee ko ko bayit wa moo di jàngal te jàngale jàng ak jàngale gën a rëy ak pay te pay ga ku dul muñkat bu rëy du ko mos jàngal te jàngale jàng ak jàngale gën a rëy ak pay te pay ga ku dul muñkat bu rëy du ko mos bu ma wax loolu rek day jàpp ne teral na la kemtu lay kàttanam daal di lay xool nag ndax bëgg nga am déet bu gisee ne sa mbégte des na xëy na dese ngaa xam li mu wax li mu làmboo mu jox mu jox la njëgu suukar waaye bu fekkee ne gis na ne sa mbégte mat na ci loolu lay yem kon noo ngi sant bu baax ci tiraanga jooji yi dellu di la sant itam ci tiraangay bàyyi gi nga nu bàyyi xel boole noog ay kilifa yu taxaw temm ci lépp luy sunu yitte ci liggéeyub daara ji duñu tanqam lu jenn yitte dellu di la sant itam ci tiraangay tey jii àdduna sépp soxla woo la yow nga soxla woonu ñëwal fii sa bopp di nemmeeku liggéey bi deseeloonu dara tey te noo ngi rafet njort ci ëllëg ñoom ñii nag li ma la li ma mën a seede ci ñoom mooy mel na ne xam nañu tiraanga ji ndax yàlla yemalewut pas-pas yi yemalewut njàmbaar gi yemalewut yemalewut farlu waaye yëg naa ne kenn ku ne ci ñoom yaa ngi jéem sa kemtulay kàttan ci luy rafetal liggéey bi nuy sàkku ci sëriñ bi mu ñaanal nu ndimbal gàttandunu ba li mu bëgg ci liggéey bi mu amee ko nu kawe njortam noo ngi koy ñaanal nu itam ci barkeb alquran ji ñuy jàng fii ci barab bii ana alleyli wa atrafa nahaar te moom muy sabab si ak ci barkeb sëriñ Tuuba ñu muy liggéeyal ak soxna jaara mi ñu tudde barab bii noo ngi koy ñaanal ci barkeb yooyi mu yàgg fi te wér ba mu yéenee liggéeyal sëriñ bi lépp mu yeggale ko ak sagoom te daje ci te daje ceeg ngërëmul sëriñ bi te nu ànd koog moom wolof yi nag danañu di wax ne lu dul doy loo ca am mu doy kon daa mel ne jataay bi sëriñ bi toog ñun ñëpp ñu di ko xool mu di ni xool jataay bu dul doy la kon lu nu ci am rek na doy di wax ne itam wala fi daañu wax ne itam farata yàggul te lu dul farata amulub àpp kon te sëriñ bi ni ñu ko soxlaa fii ni la ko àdduna sépp soxlaa kon danañu ko jox ndox soxna awa faggu na ko dañu ko jox ndox mu ñaan ci ñaanal ci mboolem waa daare ji ak bépp bokk taalibe bu ci bëgg a jariñu mu ñaan ci bu ko defee bu noppee soxna si képp ku ku ci soxla nga jokkook soxna si dana fexe ba nga am ci bu ko defee loo bëgg nga fas ko ci te kenn bañ koo dékkaat butéel ndax kenn ku ne boo bëgg yor sa butéel dékk ko ko mën naa am fi lay yendu te jataay bi day metti ci moom te mbooloo nga koy néggandiku fa mu ne su noppee ci loolu ku ne fa nga toog nga tàllal say loxo te teewlu te fas la nga bëgg mu ñaan te bu noppee ñu may ko ndax mbooloo nga koy néggandiku ca kër ga di ko néggandiku feneen bu ñu noppee nag ba mu ñaan ba noppi itam bu kenn jóg fa nga toog kenn ku nekk na nga toog fa nga toog may ko ba mu jóg ba génn kuy jóg nga door a jóg loolu ñu ngi koy sàkku ci bokki taalibe yépp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf Cheikh Abou Madiane. waaw nee na jërëjëf Cheikh Abou Madiane. cant gi ñu ngi koy tàmbalee rek ci borom lépp. nee gi ñu ngi koy tàmbalee rek ci borom lépp. moom mi boole ak sëriñ bi. moom moom ak sëriñ bi. ñuy gën sëriñ bi. ñuy gën a sant sëriñ bi. muy sunu lépp tey ak ëllëg. sunu lépp tey ak ëllëg. di sant yi Cheikh Mouhamadul Bachir. di sant mi nu fàggul taxawaay bii mi nu fàggul taxawaay bi. itam Cheikh Mouhamadul Moustapha. di sant yi Cheikh Mouhamadul mi ñu sembal sembu wu mi mi sembal sembu wu di sant bu baax a baax a baax. di sant bu baax a baax a baax a baax. ci taxawaay bi. ci taxawaay bi ci taxawaayu liggéey bii. ndax dadul mën a ñàkk. ndax dadul mën a ñàkk. waxtu wu nekk. mu am ay taxawaay. mu am ay taxawaay. ba ba ba bis penc ba rek. taxawaay yii nag yii nu yii nu taxawaay yii nag yii nu jamonoonteel. ñoom ñi yor taxawaay bii. ñoom ñi yor taxawaay bii. yàlla defal nu tawfeex nun ñëpp. yàlla defal nu tawfeex nun ñëpp. nu bokk taxawaay bi. nu bokk taxawaay bi. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. sant it ñi nga xam ne. di sant it ñi nga xam ne. bi Cheikh Mouhamadul Moustapha wootee liggéey bii. waxuma ñu di ko wuyu. waxuma ñu di ko wuyu. waaye dañu koo gàttandu. waaye dañu koo gàttandu. gàttandu googu. gàttandu googu. feeñ na. feeñ na. muy jëf. muy jëf. joo xam ne dañ ci mën a teg bët. jëf joo xam ne dañ ciy mën a teg bët. loolu mooy fa ci loolu mooy mu tàmbalee ba ci jataay bii tey. di gën santaat sunu borom itam nag. di gën a santaat sunu borom itam nag. ci mi nga xam ne gàttandu nañu ak tawféex. ci mi nga xam ne gàttandu nañu ak tawféex. nañu ko bëggee woon. nañu ko bëggee woon. nu amee ko nu raw sunu njort. nu amee ko nu raw sunu njort. muy jëmm jii muy sëñ Abo mii. muy jëmm ji muy sëñ Abo mii. noo koy sante bu baax a baax. noo ngi koy sante bu baax a baax a baax. di ko sant di ko gërëm bu baax. sant mboolem ñi nga xam ne ñoom la ñoom la àndal liggéey bi. sant nag mbooleem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi nag. nii mu ko waxee rek leer na nañ. nii mu ko waxee rek leer na nañ. jarul woon dolli dara. jarul woon dolli dara. waaye sant nag. waaye sant nag. du doy. du doy. kon sunu lépp ak cant la. kon sunu lépp ak sant la. Eh, li li li li nu am nii. li nu am nii. doy na xel mu dal. doy na xel mu dal. tey ëllëg. tey ak ëllëg. doy na it seddu xol. doy na it seddu xol. goo xam ne seddu xol du ko mën a weesu. goo xam ne seddu xol du ko mën a weesu. doy na itam yaakaar. doy na itam yaakaar. ci li ci suñu kanam lépp. ci li ci suñu kanam lépp. ba ci bisub ba. ca bisub taxawaay ba. kon sunu lépp ak cant la. kon sunu lépp ak cant la. ñi nga xam ne itam. ñi nga xam ne itam. ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci tawféexi Serigne Moustapha. ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci tawféexi Serigne Moustapha. àndoon ak moom xalaat bii. àndoon ak moom xalaat bii. ànd ak moom ànd ak àndoon ak moom ci taxawal gii. àndoon ak moom ci taxawal gii. ñu ñu del si àndaat ak nun ci taxawaay bii. ñu del si àndaat ak nun ci taxawaay bii. ñooñu itam noo ngi leen di sant sunu borom bu baax. ñooñu itam noo ngi leen di sant sunu borom bu baax. la gis ci ñoom. ndax lañu gis ci ñoom. sëñ sëriñ sëñ Moustapha gën jëkkoon koo gis. sëñ Moustapha njëkkoon nu koo gis. yàlla rek yaakaar yàlla sunu borom rek moo ko def ci ñoom. sunu borom rek moo ko def ci ñoom. yàlla na yàlla xeeb dolli. na yàlla xeeb dolli. ci képp ku ci ñeel képp bokk ci taxawaay bi. ñeel képp ku bokk ci taxawaay bi. kon ca ak cant rek fi nekk. kon ak cant moo fi nekk. te dañ yéene ci sunu xol rek. te te dañ koy mën a yéene ci sunu xol rek. jéem koo biral ci sunuy làmmiñ. jéem koo biral ci sunuy làmmiñ. waaye lu mën a xew. waaye lu mën a xew. du mën a sottal mukk. du mën a sottal mukk. fa cant ga àgg. fa cant ga àgg. du ko mën a xamle mukk. du ko mën a xamle mukk. nag. walbatikuwaat nag. di sant njaboot gi. di sant njaboot gi. njaboot gi. njaboot gi. doon doon i gone. ak li ñuy doon doon ay gone. il fokk que am am nañ nañ ci ñoom seen cantug bopp. il faut am nañ ci ñoom seen cantug bopp. ndax seen kilifa yi leen fi indi. ndax seen kilifa yi leen fi indi. seen yéene rek lañu mën a am. seen yéene rek lañu mën a am. seen yitte. ak seen yitte. waaye alhamdulilah rabil aalamiina. waaye alhamdulilah rabil aalamiina. sunu borom gàttandu gàttandu na leen ci seen yitte yéene jooje. sunu borom gàttandu na leen ca seen yéene jooje. ak seen yitte jooje. ak seen yitte jooje. def ko ci njaboot gii. def ko ci njaboot gii. gone yii gone yii. di njaboot gi. di njaboot gi. li ñuy tuuti tuuti. li ñuy tuuti tuuti. fa tabaarakallahu. fa tabaarakallahu. liñ leen won rek. liñ leen won rek. moom la gis. moom la ñu gis. liñ leen nekk loo. liñ leen nekk loo. moom la ñu nekk. ca la ñu nekk. niñ leen melloo niñ leen melloo rek lañu noonu rek la ñu mel. loolu nag loolu nag dañuy delloowaat cant gi rek. dañuy delloowaat cant gi rek. ca sunu borom. li nga xam ne mooy def. li nga xam ne mooy def. mooy dindi mooy dindi. te defal defal nu ci ñoom. te defal ci ñoom. li nu bëgg li nu bëgg. muy loo xam ne. muy loo xam ne. sunu yaakaar rëy na lool. sunu yaakaar rëy na lool. waaye xel dal waaye sunu xel dal na ci. ginnaaw cant gi moom. kon nag ginnaaw cant gi moom. la des ci cant gi. la des ci cant gi. dañ koy jéggulu. dañ koy jéggulu. waaye nañu xam ne. waaye nañu xam ne. cant gi daj na. cant gi daj na. mbooleem ñi bokk ci taxawaay bi. ñi bokk ci taxawaay bi. cant gi daj na leen. cant gi daj na leen. kon foofu rek lañ koy mën a yemale. kon foofu rek lañ koy mën a yemale. suñu borom moo xam lépp. sunu borom moom moo xam lépp. moo def lépp moo def lépp. kon nag kon nag. cant gi moom. cant gi moom. ñun xamuñu fu ñu koy tàmbalee. ñun xamuñu fu ñu koy tàmbalee. xamuñu fu ñu koy yemalee. waaye moom xam na ko. waaye moom xam na ko. sant nañ bu baax a baax. sant nañ bu baax a baax a baax a baax. li ci des rek. li ci des it mooy ñaan rek. ñi nga xam ne ñoo taxawaayu liggéey bi ñi nga xam ne ñoo taxawaayu liggéey bii. noo ngi leen di ñaanal ci baaxu Serigne Touba. ngi leen di ñaanal ci baaxu Serigne Touba. ak ngëneelam ak ak darajaam amiin. noo ngi leen di ñaanal. noo ngi leen di ñaanal. yokk seen lépp. suñu borom yokk seen lépp. amiin teg wér jiitu ca. teg wér jiitu ca. suñu yàggal leen lool. suñu borom yàggal leen lool. ak kattan. ànd ak kattan. nañu bëgg gën a mën a taxawee ci liggéey bi. nañu bëgg gën a mën a taxawee ci liggéey bi. suñu borom gën leen a gàttandoog tawféexi sëriñ bi. suñu borom gën leen a gàttandoog tawféexi sëriñ bi. ci seen lépp ci seen lépp nag. am wér. am wér. am kattan am kattan. yitte ji gën di dolliku. yitte ji gën di dolliku. yéene ji di gën di rafet. yéene ji di gën di rafet. pastef bi di gën di di gën bi di gën di wér. yitte ji gën di di gën di dolliku rek. yitte ji di gën di dolliku rek. moom rek lañ leen di ñaanal. moom rek lañu leen di ñaanal. te yàlla it may leen wér. yàlla it may leen wér. sàmmal leen boppam. sàmmal leen boppam. ci luy jóge ci bépp safaan. ci luy jóge ci bépp safaan. loolu lañ leen di ñaanal. loolu lañu leen di ñaanal. gannaaw cant gi. gannaaw cant di gën a nun itam di gën a yeesal. nun itam nuy gën a yeesal. li suñu diggante ak ñoom. suñu diggante ak ñoom. ñoom ñi bokk liggéey bi yëpp. ñoom ñi bokk liggéey bi yëpp. noo ngi noo ngi noo ngi gën a fas yéene. noo ngi gën a fas yéene. gën a waxtu wu ne. waxtu wu nekk. noo gu ne. noo gu nu am ca pasteefu. nu am ca pasteefu. yeesal suñu diggante ak ñoom. yeesal suñu diggante ak ñoom. li nu séq. li nu séq. nu fas yéene koo sàmm. nu fas yéene koo sàmm. la cay sunu kem kattan. la cay sunu kem kattan. lu ñu ci la ñu ci yéene. la ñu ci yéene. lu ñu ca ñu ca mën. suñ kem kattan suñ ñu fas yéene caa nekk. ñu fas yéene caa nekk. sax ca dàkk sax ca dàkk. lu ñu ca mën. lu ñu ca man sante ko sunu borom. sante ko sunu borom. lu ñu ca mënul. lu ñu ci mënul. nu ñaan sunu borom. ñaan sunu borom. mu gën noo kattanal. mën a gën gën a ànd ak ànd ànd ak ñoom ci liggéey bi. ban gën a mën a ànd ak ñoom ci liggéey bi. gën gën ba gën leen cee mën a mën a teete bu baax a baax. ba gën leen cee mën a teete bu baax a baax a baax. man cee man cee gën a dalal seen xel bu baax. man cee gën a dalal seen bu baax a baax a baax. loolu mooy sunu yitte. loolu mooy sunu yitte. sunu yitte du dara lu dul lu dul liggéeyal sëñ Tuubaa. liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey sëñ Tuubaa nag. amul benn benn liggéey bu mën a jiitu bii. amul benn liggéey bu mën a jiitu bii. kon loolu rek mooy sunu yitte. kon loolu rek mooy sunu yitte. noo ngi leen di sant bu baax. noo ngi leen di sant bu baax. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. sunu xel sedd na guy. sunu xel sedd na guy. xel dal rëteex. sunu xel dal na rëteex. sunu yaakaar wér na. sunu yaakaar wér na. yemale ko fenn. yemale ko fenn. fudul fudul. bis penc ba rek. bis penc ba rek. nanu ko junjee woon ca liggéey bële. nanu ko junjee woon ca liggéey bële. xam ne mel na ne mel na ne mel na ne moo moo lii ñoo bokk fu ñu jóge mu mel mel na ne liggéey booba ak bii ñoo bokk fu ñu jóge lépp sëriñ ndax lépp sëriñ be nan ko waxee woon nan ko waxee woon. yitte jooju. yitte jooju eh, yàlla na sunu borom kattanal. yàlla nanu sunu borom kattanal. ban yëkkati ko ca kaw. ban yëkkati ko ca kaw. tem bañ a laal suuf. bañ a laal suuf. benn jamono. benn jamono. ci li ci sunu kanam. ci ñu ñëw. ñu ñëw ñu ñëw. ñëw nañ gën a am doole. ñu ñëw nañ gën a am doole. gën a am yitte. gën a am yitte. gën koo taawu ca kaw. gën koo taawu ca kaw. gën moom. ñu gën a dox ak moom. ba ba fa nu jëm rek. ba fa nu rek. ba ba bis penc ba. ba bis penc loolu rek mooy sunu yitte mooy sunu ñaan. loolu rek mooy sunu yitte mooy sunuy ñaan. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. mën nañ ko yemale foofu. mën nañ ko yemale foofu. li ci sunu xol. ndax li ne ci sunu xol. mënu koo wax ci sunu koo wax ci sunu làmmiñ. noo ngi koy seeral waaye noo ngi koy seeral sunu borom. di ko seeral bi. di ko seeral sëriñ bi. ko seeral sunu kilifa yi nga xam ne. di ko seeral sunu kilifa yi nga xam ne. ñooñu ci jiitu woon. ñooñu ci jiitu woon. te faggul nu fagguteef bu rëy bii. te faggul nu fagguteef bu rëy bii. te teg nu ca. te teg nu ca. dëgëral nu ca. dëgëral nu ca. saxal nu ca. saxal nu ca. leeralal ñu yoon bi yëpp. ñu yoon wi yëpp. ba ba ba benn kumpa amul. ba benn kumpa amul. benn gàllankoor amul. loolu noo ngi koy sant suñu kilifa yi. loolu noo ngi koy sant sunu kilifa yi nu jiitu. cant goo xam ne cant goo xam ne. fan koy soxale. fan koy soxale. mooy fa sëriñ ba rek. mooy fa sëriñ ba rek. moom mi nga xam ne mooy borom liggéey. moom mi nga xam ne mooy borom liggéey bi. dañu xam ne fu ak fu fu mën a nekk. ci kaw suuf dañu xam ne amel nañ ko eh, nañ ko cant gu rëy waaw ah, te te te noo koy sante sunu borom di ko sant sëriñ bi waaw loolu moom fu daa fu day maam jaar nekk ci kaw suuf rek loolu na xam loolu na xam ne ñoo ngi koy cant cant goo xam ne amul genn cant goo xam ne mën na koo jikk fete kaw waaw di leen ñaanal itam eh, yàlla gas ñoom ñëpp suñu boom gën leen a gas nag tawfeex Sëriñ Tuubaa seen lépp di gën di yomb waxtu wu nekk seen lépp di gën di waxtu wu nekk seen lépp di gën di dolli ko barke waxtu wu nekk noonu leen di ñaanal loolu koy ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom jógee ñoom lañu jàkkaarloo kon loolu loolu sëñ sax na wax na dëgg wax na dëgg ndax alhamdulilah moom it mu am tawfiq ci ñu ñu ñu ñu ñu ubbil ko liggéey maam Diarra waaw ubbil ko liggéey maam Diarra weesu boole koog mboolem daayira yi ñi nga xam ne ñoo jóg. ngir liggéeyal maam Jaara loolu alhamdulilah rabbil aalamiin sëñ sëñ Isaaxa euh, euh, euh, amul woon jot bi mu ñëwee ba tàmbali liggéey bi itam yàlla defal na ko ci ndam ndax ku ne xam ne. parrainage waaw lu mu indi lu mu indi ci daara ji waaw waaw waxuma sax li mu fi indi rek waaye lam bàyyi ci xol yi ak yitte jëm yee yam cee def. loolu alhamdulilah rabbil alamin loolu rek yor na daara ji waaw <laughs> loolu rek bu ñu leen bàyyi woon itam ñoom dinañ mën a yor daara ji waaye daara ji day taa ngay day taa ngay sëñ sëñ bi joo xam ne eh, daa war a daj képp daa war a daj képp kaw suuf war a daj képp ndajoor càmmoñ war a daj képp soow penkoo soow waaw loolu loolu kon amul amul yi amul yi mooy waaw kon nag nañ sant yàlla boog te na ci rek nan nan ci def suñu lépp Euh, sax ci dàkk waaw waay ci dégg waaw di gën a am xel mu dal di gën a am sedd xol di di di di di gën a am di gën a yëg texeeg tey ak texeeg ëllëg waaw loolu lépp ci yaan gi la mën nu ko la ci lañ ci lañ ci lañ ci lañ ci yéene mën nu ko wax suñu làmmiñ waaye mu tàmbalee ko loolu mu feeñale ko loolu rek jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi lii mooy nemmeeku gi nga xam ne Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir xalif général des murit amal na ko ci daare maam jaara ji nga xam ne moo nekk ci poroxaan ak mbooleem chantier yi nga xam ne ñu ngi ko naal ci biir daare ji ak jataay bu am solo bi nga xam ne am na kook maam jaara yi ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi di ñaanalaat sëriñ bi mu yàgg fi loolu tànd ak wér ba lépp loo xam ne naalal na ko sëriñ Tuubaa mu àggale ko ànd kook mbooleem taalibe yi a Hallelujah.